bi nga xamante ni nii cérémonie boobu jeex na ba mu delluwaat ca kër ga nag bokk yi fekk fa di ko sant di ko gërëm kenn ku nekk di fésal ak cantam di ko kañ ci njàmbaar gi mu def eh, ku ñu wax jaaju juuf géwalub ngalandu juufa daal di daal di wax kaa yi ni leen may leen ma may leen ma ñu may ko kàddu mu ne na mbooloo mépp déglu mu joxar bi Cheikh Mouhamadou Moustapha ni ko lii nga def mérite la du sens mérite mérite la ndax njàmbaar gi mu def ni ko tey mbooleem ñi teew ci barab bi ñëpp bëggoon nañoo doon yow teew bëggoo doon kenn ku may sëñ Bamba sëñ Bamba rek nga bëgg a doon te sëñ Moussa àdduna ca ni ko ay jaaji tubaab yi day biñ may takkal seen médaille boobu buñ xamoon laay ji ma toll ak ay cib tubaab nga xam ne rek ni li ñuy def lépp dara sëfu ko ci waaye moom yitteem mooy fa leen seen bàyyi bàyyi woon rek foofa lañ teg seen tànk fam leen joxoñoon it foofa rek lañ dox jëm te mooy yéene jooju yi nga xam ne sëriñ bi amoon na ko ci lislaam te bay ci waar wu am solo loolu rek moo doon seen yitte nga xam ni kon loolu mooy li nga xamante ne ni moo aju ci yoonu saxaar gi ginnaaw bi nag ngay déggaat ñu ni nguurug France financé na moo financé yoonu saxaar gi ma ni leen du yoonu saxaaru Touba Jurbel ñoom document yi nga xamante ne ni moom lañ wax bis biñ wax ni ci lañ démarré seenub liggéey le 19 mars 1931 ci lañ érigné inauguré yoonu saxaaru Jurbel Touba te gouverneur général moo ko dirigé woon ñoom dossier yi ñoo yor itam Jurbel tal-tal lañ ci def tal-tal nag am na ku nekk ca gannaaw saajo ba léegi yoonu saxaar àgg gu fa am na ku nekk itam ci yoonu Daaru Musi gii koo xamante ne ni ba léegi yoonu saxaar amagu ca kon loolu itam da ngay jàpp rekk ni ay tappale la yoo xamante ne ni yàgg naa am ci diggante tubaab yi muy bind ab jot financement ba lekk ko ne ci yeneen te ñuñ ko seqal maanaam duñ ko xam euh, loolu itam lu yàgg la ci diggante yoon wi ak administration mu mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax waaye loolu daal mooy li nga xamante ne ni moom moo aju woon ci yoonu saxaar gi ginnaaw boo xamante ni nag loolu jeex na ci la sëñ Moussa ak song liggéeyub jumaay Tuuba ndax bañ waree rek ci 1932 euh, ci mois de février ba la daal di woote euh, woo bokk yi mu bokkal yëpp nag ni leen léegi kat jumaa ji ci laa bëgg a jublu te bëgguma ko ni yëguma dëgmal naa ko te deetuma woon deetuma ko woon gannaaw lépp lu ma am danaa ko ci def lu ma waay jox danaa la ko ci defan loolu ñaari fan ca Korité la ci 1932 mooy ñaari fan yi ñuy amal ci Daaru Xuddoos di ko fàttalikoo jëf ju rëy jooju nga xamante ne ni Cheikh Mouhamadul Moustapha jëfoo jëfoon na ko loolu mu nga dëppoo nag juróom-ñeenti fan ci aw kori ci 1932 bañ demee ba ca le 19 février 1932 lañ def reconnaissance place bi pour. jublu ci jumaa ji jumaa ji waxoon naa ci njëlbeen nga ni ñu ngi ko xaymaa woon ci diggante jullikaay fi ayit bi jëm barabu soxna may wuti kër sëñ Issa Diène ginnaaw boo xamante ni indi nañ sëñ bi fii ñu ko indi na nga xam ne ci biir këram lañ ko def sëñ Moussa daa wax ni imaam sëñ bi moom imaam lay doon ba faw te imaam du des ginnaaw kon day rëkkale jumaa ji bootal ko sëñ bi moo tax ñu sàqi kër gi yëkkati néeg yi def reconnaissance place bi ci njiital sëñ Mbàkke Bousso ak njaboot gi ñu xiblaalaat ko jumaa ji baneen yoon muy ji nga xamante ni moo fi nekk actuellement bootal ko sëñ bi moo tax ñiy wax naan jumaa ji armeel ay armeel la itam dañoo xamut waaye jumaa ci minbar lay tàmbale jëm sow te ci minbar bi barab baa ngi ca kanamam jotewut ak jumaa ji dara kon dañ seetluwaat bu baax a baax euh, li li ñuy wax ndax jumaa moom ci bar lay tàmbalee jëm sow te barab baa ngi ca kanamam te it am na lu leen séparé loo xamante ne ni jot jotewuñ dara waaye ci le 19 février 1932 lañ def reconnaissance su place bi ci le 22 février 1932 ci lañ dagg bépp gi nga xamante ne ni moom moo tiimoon barabu sëriñ bi te moo doon garabu gi nga xamante ni bi sëriñ bi sañ ci dëkk bi foofu la jëkk a dal foofee itam mooy mujj fiñ ko mujj a gisee. bi mu koy dagg itam am na ci ñenn ci nit ñoo xamante ne bokkuñ ci aw gisin ndax jàppoon nañu garab gi moom waree su koo dagg sëñ Moussa ni leen di day dafa mel ni rek nga am sa alal joo fonk lool denc ko ci barab wut dara di ko xàmmikaay foo mën a ne sa xel ci la mu rek mooy la nga xàmmikaay alal ji ngir bañ koo ñàkk ni leen garab gi lool rek la doon symboliser mooy fii sëñ bi tëdd rek loolu loolu moom la doon xamtu dëgg moo tax ci la 22 ci lañ ko dagg tàmbali gas fondation bi ci la 4 mars 1932 lañ tàmbali gas fondation jumaa ji muy génne deey euh, daaj sees bi waaye ci la le 25 mars 1932 ci lañ teg xeer wi le 25 mars 1932 ci lañ teg xeer wi liggéey bi démarré mag ñi gas fondation pare léegi lañ tàmbali ndànd fooy fooy gu defu dara nga teg faw xeer di wuti loo fa def waaye moom daa gas fondation bi teg xeer bi liggéey bi démarré loolu boo demee ci mbindum sëñ la Lamin Jóob daggana ci taarixu jumaay Tuubaa manga ca te teg xeer wa ajjuma la noppi samedi dimanche sëñ Mat Lamin noppi na ca la doon bind kon diggante bi naax xaju fi jaawale ay mbir xaju fi waaye lii daal mooy li nga xamante ne ni moo aju ci liggéeyu semaine de bi jumaa ji door a ñëw ginnaaw bi sax sëñ Moussa laaj na sëñ Moussa Ndiaye njëyante sëñ Ablaye Diop lew na ne ko wëral ma sànc jumaa ji ba xam da nga fi gis dara ci bagage yoo xamante ne nii oto mënu ko fee indi wala déet mu wër ni ko waxtu gell gisuma mu ni ko tubaab yi dañ ma ko doon gàllankoore rek waaye sax bagage bu oto mënta indi nekku fii waaye dañ ma ko doon gàllankoore rek waaye dañoo xamut woon sax ni ba ñu ma waxoon ma solu ci soldat danaa solu ci soldat ndax lëggéeyal sëñ Bamba jaral na ma ko luñu daal mooy kàddu yi nga xamante ni bëggoon nañ koo jokkalante ak bokki jullit yi bokki talibe yi noo ngi ñaanal ñëpp yërmaande suñu borom ak njëgalam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.